Idrissa moom ci biir la nekkoon. Euh, génn non ba mu nekkoon ci biir non attends ba mu commencé bëgg génn la wax xam nga Idrissa Seck ba muy wax ak Macky Sall dañoo jàpp ne dañuy ànd moom wax na ko ci discours am nee na intérêt mooy nekk responsable de l'opposition ñu koy jox 4 milliards par an parce que. 2 milliards et c'est même pas disponible. Euh, parce que le le le vote n'a pas été consacré da ngeen ko xuy xamaj nii rek. non waxuma la li ñu def ñun moom li mu wax laa la wax yaa ko indi turam. Hmm. je le connais je fais partie des gens qui le connaissent le plus au Sénégal parce que ñoo màggandoo moom màgg ñaari at mais ñoo juddandoo suñuy kër nii la def Thiès c'est un politicien man li muy def nii. personnalité politique am noonu la mel. cest yi dire lu mu def. non euh, ànd ak ñun à un moment bien déterminé génn na ba muy ñëw di négocier di ñëw dina day fekk si d'accord ne moom soit mën na jàppale Macky Sall soit mën na nekk candidat. l'entente est-ce que nekk woon bu 2024 jotee moom mooy nekk seen candidat. non non non li ma lay wax lu leer nañu la. nga dégg ko wax ne Macky soit mën naa la jàppale. soit mën naa génn dem nekk candidat. mais c'est ce qu'il euh, bi mooy bu ne mun naa la jàppale mooy boobu jàpp ne Macky Sall mën na nekk candidat bu toogee tey ne day nekk candidat ne Macky Sall mënul nekk candidat foofu kooku ban crédibilité nga koy jox non déglu rek.